wax yi nga waxee nii euh, te bokk ci gouvernement wane na ne am nañ gouvernement boo xam ne bàyyi na xelam ci peuple bàyyi na xelam ci peuple bàyyi na xelam ci soxla ay peuple am euh, te loolu buñ ko amee ndimbalu yàlla la ngëneelu yàlla la mbaaxu yàlla la ci Sénégal tax Sénégal itam mbaax gu am yàlla may ko ko dëgg-dëgg fekk na góor ñoo xam ne liggéey nañ ba yàlla war leen a defal teraanga boobu nga xam ne defal na leen ko ci seen biir dundu defal leen ko itam ci seen gannaaw dund ndax yàlla rek moo fi nekk mooy maye mooy xañe mooy yëkkati mooy daane ah yëkkatiku lañ bëgg ci suñ Sénégal gii yëkkatiku lañ bugg mbooleem loo xam ne nit dina fa àgg ci yëkkatiku ci xam-xam ci diine ci alal ci nit ñu noble ah yooyu yëpp soxla nañ ko pour mu am ci suñu Sénégal gi sa sa sa waxtaan dëgg-dëgg dugg na ci xolu nit ñi te mun naa wax ne jaarul ci seen nopp yi sax ndax dëgg mooy mooy mooy duggee noonu dëggu itam mooy mën a dugalee noonu bon nag te ci ci équipe nga nekk eh, bon yàgg sa équipe yëpp li ngeen yéene Sénégal yéen leen ci yàlla dimbale ngeen defal ko yàgg sa équipe yëpp li ngeen def pour Sénégal ak peuple Sénégal yépp yàlla am na ko yal ko loxo yàlla génne barke Sénégal ci seen loxo ndax Sénégal réew mu am barke la réew mu réew mu yàlla yëkkati la réew mu yàlla teral la ndax sous région bi yépp <coughs> bala ngeen le may région bi nañ ah te luñ fi aussi li gën a kawe lu di ut mooy ak yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad dëkkut fenn waaye fu nekk la dëkk itam ndax fu julli nekk rek yonent a ngi ci xolam bon yonent a ngi dëkk foofu bon nag bu ñu amee di feetu euh, bésu yonent bi fii ci Médina ak feneen ak feneen c'est que dafa tànn place bi rek waaye ñun ñëpp ay feetoo yonent gouvernement baa ngi ànd ak ñun ci feetu it voilà tegtal baa ngi ni ñu ngi ànd di xam luñ soxla ñii gàmmu luñ soxla ci seen bés yooyu ñu ànd ci yéen dimbale leen ci ndax ñoom itam ak ñun ñoo bokk yonent bi ñoom itam ak ñun yaakaar bi ñu am ci yonent ñoom itam moom lañu am ci yonent bon nag bu bésam ñëwee Sénégal yëpp ànd di ko tiitaroo dëgg-dëgg xéewalu yàlla bu yàlla may Sénégal la